ci doxale dóor mhm. euh, àdduna bi di yee immigré yi ndax ñëw nañ fi Brésil 2016 mhm. euh, ak seen Cheikh Ndiaye jawriñ euh, def def Brésil São Paulo def Rio de Janeiro mhm. def Porto Alegre uh-huh. def Caxias def ay rencontre yu mag yoo xam ne ñëpp xam nañ ne ñooy ki njëkk a ñëw Brésil dajale immigré yi di waxtaan ak ñoom ci ay opportunité ci ay projet ci ay retour Mhm. ci ay eh, ay àq ak yelleef mhm. te loolu lépp ñu ko defoon ak suñu propre euh, fonds mhm. nga xam ne ci lañ ko defe woon euh, loolu daal moo mooy li na xam ne mooy Abdou Lahat Lo di immigré retour ñëw taxawal programme boobu pour jàppale immigré yi pour seen retour euh, ci mu conseiller ci li nga xam ne te jii nii bu pare nekk consultant en migration ci biir réew mi tamit yàlla def na ak suñu liggéey ñu ngi lëkkaloog OIM di liggéey ak ñoom état bi tamit euh, lu mel ne DGSE. Mhm. ñu ngi doon lëkkaleeg ñoom. Mhm. Euh, ci lépp lu xam ñun di leen ko mën a wax waa FAO. Mhm. ak tamit ARD di def ay formation en leadership. Uh-huh. def ay formation ci ci bokk ci groupe WhatsApp immigré yu bëri. Uh-huh. di ànd ak ñoom. Uh-huh. ci ay xalaat yoo xam ne xëy na dana man a tax ba immigration gën a mën a mucc ayib incha allah. loolu leer na te niñ ko waxee yaa ko gën a mën a waxee nii mu leeree nii yow rek yaa ko mënoon waxee nii ba tax na ñu la ci gërëm bu baax a baax ci leeral bi dina tax ba nga xam ne dafa toog di déglu doon dégg sa tur rekk nii nga waxee day bu toogee dégg sa tur déglu nga wax dina xam tey ji kiy wax mooy kan ba tax na liñ lay liñ lay njëkk rek parce que sànq maa ngi xool ci Google bi sa parcours loolu yëpp gis naa ko ci en même temps mhm. aussi maa ngi gis eh, sa parcours nga dem ba wàllu Europe gis naa nga dem ba Pescara gis naa nga dem mhm. ba Montpellier donc yooyu ñun dañ la ci encouragé mhm. te it di la ñaan aussi nu noo ko gën a mën a yombalee nga xam dina mën a jàppandi ci wàllu immi ci immigré yi ñu ngi la ciy sant bu baax di la ci gërëm waaye laaj bi ñuy njëkk a tàmbale ak yow mooy yow nan nga gisee lan moo indi tey jii l'immigration clandestine bi nga xam ne sénégalais yi jël nañ ko ah tàmbale ci kooko euh, ci géej gi nga xam ne mën nañ ne démb rek maa ngi gis ci info yi lu mat cent cinquante quatre personnes sénégalais yoo xam ne dañ leen delloowaat Sénégal ñoo xam ne demoon nañ jaar ci géej gi ba yegg Espagne terewul dañ leen delloowaat tey jii lan nga mën a. Mhm. tàmbalee ci conseiller lan nga xalaat ne jeunes yi loolu lañ war a mën a def pour war a mën a toog Sénégal parce que li waral ma lay laaj loolu mooy du génn rek. mooy mhm. solution. lan moo tax ñëpp jàpp ne mhm. génn mooy solution bi lan lan moo xew Sénégal wala responsabilité yi ban côté la nekkee lan moo waral loolu. ñëpp jàpp ne génn mooy solution. waa kay euh, sëñ Cheikh ñu ngi ziarewaat euh, mbokki auditeur yu euh, Touba Argentine TV yëpp di wax boo xoolee tey immigration lu mhm. yàgg la sénégal yi dañoo yàgg immigré mhm. ci voie normale voie terrestre mhm. ndax man lu ci bëri ci wàllu immigration duma la wax dégg naa damay damay dem désert bi dem naa fa jaar naa ay yoon jóge Espagne dawal oto mhm. jaar jaar Maroc mhm. bu ma jaaree Maroc bu ma demee étranger sax damay fanaan ci hôtel yi pour gis ah. Sénégalais yi jàll uh-huh. nan lañ bëgg a jàllee nu ñuy def mhm. ci yenn condition lañ ne mu ah. ñëwee Agadir mu ñëwee ba Dakhla uh-huh. euh, ba Nouadhibou tout ça mais uh-huh. euh, euh, Sénégalais ci moom la tukki nekk ci xol bi waaw Euh, dañoo dafa nekk loo xam ne daa mel ne dañoo dem ba mu nekk suñu direct sénégalais bi moom bu génnul rek mhm. day mel ne amul dara uh-huh. loolu benn réalité la euh, mais euh, dëgg-dëgg mbir mi mooy que ne uh-huh. immigration Sénégal uh-huh. xam nga ñetti at yi weesu ñu ngi doon tëgg benn benn programme boo xam ne ñu ngi ko tuddee politique nationale migratoire du Sénégal. Sénégal si parce que réew yu bëri yi nekk ci àdduna bi. Uh-huh. dem ba toll fi Sénégal toll ci wàllu immigré. Uh-huh. na xam ne di am ay trois millions immigré ci àll bi. Uh-huh. dañuy daal di teel a tëgg seen politique nationale migratoire. xool nan la ñuy tettee immigré bi. ba mu dem. immigré bu demee tamit nan lañ koy tertee ba mu mën a ñibbisi. te du am gàllankoor. ak tamit nan la ñuy fexe ba ëpp obstacle yi mën a daj yëpp. ndax tey jii nii ñiy jaar Maroc. Mm. di dem di jéem a mbëkk. loolu ba commencé du tey yàgg na. depuis depuis temps depuis temps Abdou Diouf la. boobu c'était sax mooy kii am bëri wu leen problème ba Abdoulaye Wade ba fi mu toll nii. boo demee tey jii USDA USDA mi ngi nekk diggante. Algérie ak euh, ak ak Maroc. Maroc si mais boo demee foofu xamul ñaata milieu Sénégal la ñoo fa ne. parce que foofu boo fa demee ba dugg fa rek. ña fa kale parce que boo fa duggee rek. problème bi rek pour nga duggaat biir Maroc rek. pour nga duggaat Maroc kese rek. problème la loolu rek loolu rek combat la nag ngay duggaat foofu bay demaat euh, Espagne wala ngay jéem a ñibbi si Sénégal mhm. nga xam ne. Mhm. Eh, loolu lañ kale bi ci yoonu Niger bi. Mhm. ma Mali man dem naa fa. Mhm. daawaati jéeg Mali boo fa demee. Mhm. dañ da dangay da ngay dañ lay wax ne kër sëñ Tuubaa bi chaque jour booy yi fa la ñuy transiter pour dem. Uh-huh. topp désert euh, kii bi nu mu tuddati Niger bi. Niger bi waaw jaar noonu jaar Niger dugg pour dem Libye. oui pour dem Libye. jaar Niger jaar euh, ñuy jaar Bénin. am na am na soo ñuy jaar beneen pour dem Algérie. mu ngi doon c'est ça. Ah. léegi xam nga foofu trajet la boo xam ne ñu jëm Libye fa la ñuy jaar. Uh-huh. ñu jëm Algérie fa la ñuy jaar. ñu jëm beneen yeneen. Uh-huh. jaar na xam ne uh-huh. euh, voie terrestre yooyu noonu nekk yu fréquent. yoo xam ne c'est des y a yoo xam ne Sénégalais ñu ngi fay jaar di tukki. bi bi Brésil bi ubbee tamit Brésil bi nga gis Guayaquil li ñu doon def. naan ma gars yi dañuy wàcc Guiyaquil. Uh-huh. daal di bëtt ñëw dugg Argentine euh, mm-hmm. dem ci camp bi foofu. Mm-hmm. ba nga xam ne loolu. mais loolu bu ñu ko bëggee arrêté arrêté nañ ko. arrêté nañ ko facilement parce que moment boobu. amuloon visa. de Sénégal à Équateur. amuloon visa amuloon c'est ça li li nga li nga doon laaj mooy. Hmm. Euh, simple nga am euh, réservation hôtel am argent de je croyais que ne 600 dollars la woon moment boobu. 600 600 dollars. loolu rek la woon loolu rek lañ woon. loolu la aussi fa la ñu jaar ñu xam ne kon. Uh-huh. loolu da lay ne la mbir mi du tey. Uh-huh. lu yàgg la bu ñu ba nga xam ne ci ay ci ay deux mille huit deux mille sept nga xam gaal yi gaal yi directement ci tefesug Sénégal di ñëw ci deux ay côté deux mille deux mille quatre yooyu la commencé deux mille sept la commencé deux mille sept deux mille huit waaw mais deux mille quatre sax moom toujours Maroc la gars yi doon jaar mais deux mille sept ak deux mille huit ci la gars yi jógee nag directement colonne yi mooy gaal yu ndaw yi ñu yor. di ñëw directement ba agsi Europe. Uh-huh. parce que ñu xam système boobu. ñoom li ñu doon xam rek mooy ñëw ba Maroc indi seen xaalis. Uh-huh. toog foofu di xaar gaal yi pour ñu gàllal leen. Uh-huh. mais 2007 vague man Espagne ko fekk vague bi njëkk a dugg. ñu directement dafa jaaxaloon sax tubaab yi. ñii nan lañ def ba xam yoon wi ñii nan lañ def ba mën a daw mille kilomètres ñëw dugg fii ci ci ci dëkk bi. na xam ne nga xam ñoom booba dañ doon di song di xool ñuy dawal jëm la bu ñu ñëwee duñu xam kan moo doon dawal mm-hmm. euh, léegi nag affaire boobu mm-hmm. bi amee tamit tubaab yi euh, dafa am business boo xam ne tubaab yi dañ ko siy def parce que ah. tubaab yi tamit uh-huh. euh, lu mel ne Italie Espagne nga xam ne ñoo ëpp du ñuy recevoir ay immigré uh-huh. dañuy ëpp tamit du recevoir ci ay aide Union européenne te te képp ñu ngi koy jàpp ñoom ñëpp tamit dañ leen jox xaalis. Mhm. pour que ñoom ñu mën a ñu mën a xeex euh, immigration clandestine mën a euh, tamit euh, def réinsertion loolu. Mhm. mën la leen fexe ba dugal leen ci askan wi. Mhm. dafa bëri lu lu am ci immigration loo xam ne kenn mënu ko wax ndax immigration. mooy dégg naa li gën a mën a am ay financement. au niveau au, au niveau des de de de, de l'ONU l'ONU tamit. non partout partout parce que ONU organisme ONU yëpp parce que ñooñu dañuy dañuy yegg ci dëkk bi waaye bu ñu egsee dañuy fexe mm. defaral leen ay ay këyitu réfugié ay këyitu mm. réfugié la ñuy la ñuy tàmb la ñuy nekkee ci dëkk ba donc réfugié comme ku nekk xam na ne réfugié mm. domaine ONU la Nations Unies. donc Nations mhm. Unies daleen leen di soutenir mhm. ci jox leen ay financement parce que loolu dal na Brésil Brésil bi muy res bi muy recevoir mhm. immigration clandestine bi lu taxoon ñu leen di téye ci camp fi ñuy wax camp di leen defal ay ay këyit loolu financement Nations Unies la parce que ñoo leen yoroon ci fànn yépp lekk naan fu ñuy nekk fu lu ñuy def lépp lépp lépp ñoo leen ko yoroon waaye financement wu Nations Unies la woon loolu donc pays aussi. Mhm. d'une part dinañ ko xeex mais d'une part aussi dañ koy encourager pour pour recevoir l'aide de la euh, l'aide mhm. bi nga xam ne moom la Nations Unies di joxe. parce que ku nekk xam na ne mhm. pays bu recevoir ay réfugiés Nations Unies à a l'obligation mu accompagner la ci ci financement donc. loolu dem na ba yenn pays yi ñuy d'une maanaam comme li ñuy waxee. wax ci kaw te wax ci suuf ñaari pays pays yi dañ ko laa def lu mel ni Brésil def na ko recevoir ay aide Nations Unies recevoir ko pour maanaam mel ni ay ay réfugié la recevoir donc yooyu aussi mhm. ay ay deal la mhm. comme li nga wax sànq ci ci pays yi dañ koy def pour nga man dolli la loolu pour nga mhm. gën a leer non non euh, loolu uh-huh. dafa nekk loo xam ne boo xoolee tey jii nii euh, fii Sénégal mm-hmm. partout dans le monde toujours ay dégg organisme yi ay OIM ay FAO ay ya a plusieurs organismes ONU comme ni nga ko waxee mm-hmm. Union européenne tamit euh, bëri euh, coopération yi yooyu mu uh-huh. coopération am na ñoom créé nañ daaw uh-huh. non ça fait sax trois ans benn fonds bu ñuy fonds fiduciaire uh-huh. la Union européenne créé woon xam ne fonds fiduciaire boobu ay milliards yi milliards yi lañ ci defoon mm-hmm. lu ëpp mille milliards uniquement pour xeex immigration clandestine uh-huh. nga xam ci lañ defoon seen projet de retour yooyu nga xam ne boo nekkee Espagne mm-hmm. ba bëggee ñibbi la jox ba mille euros mm-hmm. nga ñibbi si ñëw toog boo amee projet ak tamit ci lañu financé kii pour pour wax rek ne la immigration bi nii lii du lu bees peut-être euh, dafa tombe ndax dafa tombé ñu am crise mhm. économique mondial waaw loolu Covid bi nga xam ne. si euh, waaw dafa tombé ak. lii sa moo nekk moo tax mu. indi moo tax mu indi tollé bi. waaye pour ñëwaat. directement waaw pour ñëwaat directement ci laaj bi yow lan nga jàpp ne moo tax ah jeunesse sénégalaise bi mënuñu toog gëmuñu toog Sénégal ci wàllu politique la. wala ci wàllu situation sociale wala économie ci ban fànn la lan moo leen poussé. pour mu préciser waaw man li ma jàpp daal man man waaw li ma jàpp mooy. Mhm. Euh, euh, politique yi. ñu ñu ngi def ci seen waar parce que teg nañ ay politique d'accompagnement. Euh, yoo xam ne xëy na jeune bi bu ci jàppandoo. Mhm. dana mën a am fu mën a jaar pour mën a former wu pour mën a tamit am financement pour mën a toog ci dëkkam liggéey defe naa ne euh, euh, institution financière yi ñu créé kenn xamul nu mu toll pour jeunes yi pour femmes pour immigré yi pour nangam nangam institution yi nga xamante ni dañ ko def pour accompagnement euh, lu mu lay ADP moom lu ba ne yu bëri yoo xam ne c'est pour la formation professionnelle mais amul benn jeune boo xam ne ci jeunes yi tukki nii mhm. koo ci mën a téye ne ko est-ce que xam nga fan ngay dem pour formation mhm. wala est-ce que xam nga fan ngay dem pour projet pour dem financer la daan la xaw ma ko mhm. intéressé wu ma euh, ça que moo tax politique yi euh, man je pense que ne ñu ngi ci li ñu war a nekk donte war nañoo dolli bu baax parce que tamit politique moo war a encadrer doomu réewam moo war a fexe ba orienté leen ba nga xam ne euh, ak tamit plus de communication. buy tax nit ñi ne xam ne lii existé na mën a ñëw wut ci ko mais le problème fondamental problème bi nga xam ne fi affaire bi amee mooy que ne booy ci waxam ñoo dem ba jàpp ne bu génn réew mi duñu tekki mm-hmm. jàpp nañ ne seen moroom yi nga xam ne dañoo tukki dem fa am fa un an deux ans commencé di tabax wala di commencé seeni situation kër changé mhm. jàpp nañu ñoom si réew mi ñu ne mhm. mënuñu fee am loolu mhm. il faut ñu génn c'est ça loolu mooy cause immigration clandestine loolu xale yi jàpp nañ ne fii nii uh-huh. faaw ñu génn pour mën a am pour mën a tekki te pourtant ay xale yu bëri ñu ngi ci biir Sénégal gi génn ñu te di tekki parce que ñun ñun fi mu toll nii mhm. accompagner bi ñu accompagner immigré de retour yi noonu la ñuy accompagner ñu nekk ci biir réew mi mais ñu nekk ci biir réew mi da gis koo ci accompagner dana am teeyu bakkanam mhm. toog topp topp procédure yi ba mën a am financement mën a teg benn affaire am bu maîtriser mhm. di ci liggéey di ci am xaalis di ci faj soxlaam mais immigré tey jii bi nga xam ne dana ñëw sax ne damaa bëgg ñibbi si Sénégal bu ñëwee maanaam appal ko trois mois li ma lijjanti bu sottiwul rek. ma nga ci pexeem dellu. ma nga ci pexeem dellu. Mhm. te te te ñaari sax li def da ko dugg maîtriser. Mhm. parce da nga ànd rek waaw man daal ñëw naa xoolal lan moo gën a dox. te nit ki li ngay def war nga xool ba xam ne carrément lii may def. Mhm. ay étude bu la defalee benn projet sax nga étudier projet bi. xool faisabilité bi xool loo ci xamul nga laajte ko. moo tax man li ma jàpp mooy. tey immigration clandestine une part état war na gën a dolli uh-huh. communication uh-huh. ak ak formation yi uh-huh. ak tamit politique emploi jeune waaye tamit jeunes yi tamit war nañ leen a gën a sensibiliser pour ñu xam ne tey jii nii Atlantique neexul lañ fi gars yi doon am avant ak liñ fay am tey du benn dëgg la Brésil bi maa ngi fa mhm. février bii rek ñëw naa Brésil février bii rek ñëw naa Brésil maa ngi woon Brésil maa ngi woon São Paulo ak euh, ak Itapira mais euh, Europe neexatul mhm. États-Unis neexatul fenn neexatul dëkk bu njëkk dam newoon ak yërmaane gën amoon ci nit ci ci nit ku ñëwul mhm. ak tey jii nii taxawaay bi taxaw ak tey jii tey jii nii am këyit nam fa jafee ak activité euh, euh, coono yi nga xam ne moom la nit ñi di di di di dund pour mën a am lu ñu yónnee seen njaboot képp koo xam ne toog nga ci sa réew am dignité boobu taxaw jéem a liggéey dañ koy am parce que y plus de quatre millions guinéens quatre millions guinéens yoo xam ne ci biir Ndakaaru kii trois million guinéens trois millions guinéens te kenn si réewu ci kenn ku ci ne bu xëyee am na ñaari liggéey. Mhm. kon su ma la su ma la. kenn ku ci ne am kon su la déggee bu baax dafay mel ne mhm. donc eh, état bi am na ci part de responsabilité maanaam ci mhm. manque de communication maanaam information bi. war a yegg fa mu war a yegg ba nga xam ne jeune bi am na projet xalaat na ko mu war a génn buntu këram xam fan lay jubali ngir ñu jàppale ko ngir mu mën a réaliser projet boobu fan lay jubali hmm. loolu donc état fayir na côté boobu ndax information bi yeggul ba ci jeunesse jeune bi nga xam ne hmm. moo nekk ba biir Joal Fadiouth wala jeune ba nga xam ne moom géej rek la xamoon hmm. ma nga ba ba mbuur wala ma nga yaraax jàngul école wala njàngam sorewul mooy li ngay firnde léegi ne am na jeunes yoo xam ne boo leen laajoon ne est-ce que xam nga tel tel euh, euh, tel tel tel euh, fu financement mën a nekk mu war faa mën a dem ñu war ko réaliser projet am jeunes yu bëri xamuñu ko kon loolu mën nañ ne mën nañ ne gouvernement bi kon wala ñi nga xam ne structure yi nga xam ne moom la gouvernement bi teg ak plateforme yi nga xam ne noonu la ko tegee aussi fa mu ko teg yeggul ca ña ko soxla mm. ña ko war a itteewoo mm. te loolu mm-hmm. je crois que ni eh, manque de communication la loolu comprendre nañ ko ñëpp xam nañ ko mais man damay wax ne rek ndax est-ce que manque de con euh, de de communication kese la est-ce que amul aussi manque de volonté de politique de jeunesse parce que man su ma mm-hmm. gisee ne teg nañ ay structures yu bari programme programme financement programme bari nañ kenn mënu ko lim ba tey jii mënoo gis <laughs> benn nga dem ci caaro yi wala nga dem Yaraax wala nga dem Yoof wala nga dem Mbuur Saint-Louis mënoo génne benn jeune bu ne la ah man kat bénéficié wu naa ci tel programme bénéficié wu naa ci tel financement amul te ñu ngi koy wax ni tel am na lii am na lii am na fees ak leneen ak leneen leen bari nañu léegi lan moo tax manque de communication boobu soit jeune bi. Mhm. loolu moo ko intéressé wul. wala aussi xam nga tukki moom li ñuy wax rek ne tukki ku mu xas ba dugg sa bopp dof nga daan dootoo dégg dootoo gis tukki rek ngay gis. Mhm. est-ce que tey mhm. jii communication bi duñ changer forme biñ ko doon biñ ko doon defee parce que comme yeggul jàppoo ne war nañ changer kon communication bi pour que mu mën a yegg ci jeune bi. waaw sëñ Cheikh man man li ma gis mooy. mooy que xam nga ci information. lépp dañ koy wuti. te jii nii Touba Argentine TV. ku duggul YouTube wala nga dugg Facebook. wër ko ba gis ko. seetaan ko. Mhm. doo mën a xam ci lan la ñuy wax ci lan la ñuy jëf. te pourtant ñu ci youtube bi ñu ci mhm. whatsapp yi ñu ci mhm. fépp même bu ñu yónnee link bi ci whatsapp bi mhm. te yow cliqué woo ci link bi dugg ci xam la ca nekk doo ko doo ko xam dëgg la ça état état surtout nag suñu état Afrique yi nga xam ne du état yu am xaalis ñun bu ñu fàttee ne ay dëkk lañ yoo xam ne tamit suñu loxo jotul suñu ginnaaw eh, ma baal ma baal gis nga man dama am benn benn benn boo xam ne mooy que ne état Afrique yi na ñu bàyyi wax ne amuñu xaalis hmm. am nañu xaalis hmm. nous avons des ressources bàyyi ma àggale ma àggale baal ma àggale sa question d'accord baal ma àggale sa question après nga ñëwaat parce que xam nga euh, ça veut dire que boo gisee wax loolu parce que uh-huh. ak lu ñu mën a wax uh-huh. donte état yi am nañu xaalis am nañ lépp uh-huh. mais mais amuñu ay ressources yoo xam ne mhm. euh, niñ ko war a niñ ci war a amee xaalis mhm. am technologie ko mën a génne ba mën ci gañe ça veut dire que loolu beneen débat la mais mais fi ma bëggoon a waxee rek tey mhm. mooy que ne euh, tey jii nii comme réew yi nga xam ne dañoo catégoriser ci réew yu ndóor yi nga xam ne ñoo ne ci àdduna bi suñu loxo jotu suñu ginnaaw état bi ay ay ay ay ay kiyam ay moyenam dafa limité euh, état bi léegi bu fekkee def na benn politique d'emploi ne parce que keroog maa ngi dégg rek euh, directeur emploi bi génn di ko wax mhm. nga xam ne ñoom teg nañ ay ci département ci région yi mhm. pour que jeune yi mën nañoo bindu ne dañoo bëgg liggéey ci lii ak lii ak yëngu mais mais nee problème la pour ñu gis nit ñi yi mhm. te pourtant ñu ngi dem ci rajo yi dem ci télé yi di ko wax. bu mm-hmm. euh, institution yi ñu teg ay ANPEJ. Mm-hmm. ay ADPM xam nga ay kii yu bëri yoo xam ne teg nañ ko man li ma gëmoon mooy jeune boo xam ne da nga ah, naa pour ñu former ma ñu ne mënuñu laa mm-hmm. dem naa def naa sama projet pour ñu financer ma ñu ne mënuñu laa financer. léegi nag kon man amatuma benn espoir. mais mais quatre-vingt-dix pour cent jeunes yi mm-hmm. maanaam jéemuñoo chercher information mm-hmm. xool fi ñu war a dem ñu dem fa pour mën a am ay formation pour mën a am ay financement mm-hmm. parce que affaire bi du formation ak financement kese ça veut dire que day am am financement am accompagnement am na institution yoo xam ne uniquement accompagnement lay defar pour ñu fexe ba régulariser sa bopp am sa ah. GIE wala nga am sa société ah. nooy fay impôt nooy defe ah. ay bu dee da commerce ay ACPEX nga fi nan ngay fexe ba sa marchandise nga mën koo jaay bitim réew ça veut que dafa jot Sénégalais yi yeewu ci mécanisme yi leen état bi tegal ñu utiliser ko mm-hmm. ñu utiliser ko pour mën a fexe ba suñu réew mën a jëm ci kanam yow bu fekkee ne kenn koy nga toog fi nga toog yow jéemoo def dara mm. léegi léegi ñu si ëpp am dix pour jànguñu uh-huh. dañuy génn ñëw ñoom lan la ñuy wax mooy am xaalis rek xam nga tey jii bu ñu ne ah barsàq wala barsa wala barsàq uh-huh. ça veut dire que mooy yow da nga jël sa bakkat la ko yow dee ak dund nga yemale mm-hmm. te pourtant yow dund nga réew mi nga toll ni nga toon uh-huh. bu dugg ci gaal mm. te yaa ngi lekk yaa ngi naan yaa ngi le yaa ngi koy am. yaa am ba pare nag koo ci gis ñoom ñoo la ëpp doole fuuf. te mm-hmm. ëpp la énergie nekk ay jeunes yu frais. li may nga bu ñu bay. bu ñu bay dinañ ci génn. Uh-huh. bu ñu demoon sàmmi dinañ ci génn. Mm-hmm. bu demoon def formation ci dara benn métier. dem ubbi seen fexe ba ubbi seen place hmm. mais sànq déggoo li ma la wax nee la trois millions guinéens ñu ngi ci dëkk bi hmm. trois millions guinéens ñu ngi Dakar te kenn chemiwu ci ñu gis ñu bëri si ñoom ñaar ah. ñu ci bëri si ñoom hmm. ñaari ñaari liggéey la am dañuy liggéey fajar gi liggéey suba gi mooy ay servi mburu ay yóbbu lii ay def lii ba pare amaat liggéey journée bi nekk seen bitig di jaay léegi léegi. économie li li ma la ci dolli ba ci dawal taxi. Mhm. lépp nañ ko lool ah. jeune sànq sànq ci sa biir wax wax nga ne. Mhm. Eh, même sénégalais bi nga xam ne immigré la bëgg a dellu si Sénégal am projet mhm. may ko trois mois. bu nekkee ci projet bi dox ci lu ma trois mois te dara duggul ci lu mel ne xaalis rek ma ngay fexe lu ko delloowaat mu mu génnaat xam nga lu waral loolu ci sama gis-gis man bu gàtt mooy que ni mhm. euh, Sénégal c'est-à-dire dañu dañu dañoo maîtriser wul temps temps mhm. gis nga boo nekkee bitim réew mhm. mel ni nga nekk dëkk yi nga xam ne euh, Amérique latine la wala nga nekk Europe Mm-hmm. ñooñu dañu maîtriser temps mm-hmm. te lu ñuy def dafa am ci temps ñu mm-hmm. koy def jàll ci leneen sénégalais bu indee projet boo ne ki nga xam ne moom la war a gis mu war ko teg defal étude de projet mu war a xëy si huit heures waa ji boo maytul onze heures lay xëy si après ñëw na ko saa yi maa ngi ñëw donc Sénégal cest à bi ak jox àq bi bi nga xam ne ñii ci dëkk bi ñu nekk ni nga xam ne Argentine la nit ñi dañ koy am jox àq àq yëf yi nga xam ne li nga war a def da nga koy def sans sans sans sans dara dafa mel ne dafa mel maa ngi jégalu dafa mel ne am na ku nekk ci ligne bi allo euh, salaamaaleykum ñu ngi leen di fàttali ne ku bëgg am laaj bu mu laaj aussi mën na dugg ci numéro bi ñu affiché ci suuf su ko defee rek dina mën a dugg directement ci émission bi sëñ bi maa ngi lay nuyu nooy tudd ak fooy wootee. maa ngi tudd Bamba Der. Bamba Der ñu ngi lay siyaare sëriñ bu mag. Brésil São Paulo. São Paulo. ana sëriñ mhm. Cheikh Ndiaye jëwrin ba mu ngi ci jàmm. sëriñ Cheikh Ndiaye jamono jii nag mi ngi Sénégal mais mi ngi ci jàmm. naka bokk Argentine ana Ousmane Baye Fall. Ousmane Baye Fall mi ngi mi ngi sant yàlla bu ñu ngi leen di siyaare ana Fallou. nga affaire yi fi ñëpp a ci jàmm. ñu ngi leen di ziar waa Brésil bu baax mm-hmm. di rafetlu émission bi di rafetlu initiative yi nga xam ne télé bi mi koy mi ngi jël ko. jërëjëf ci émission yi am solo yi nga xam ne yéen koy def. Ah, jërëjëf. ñu leen ci félicité di leen encouragé di wax ne. mbir moom noonu la rek ku yokkul ku ne yaa wàññi te yéen yéen ngi ci yoon bi di doxal. vraiment nag point bi ngeen di waxtaan su ma mooy mbirum. mbirum gaa yi nga xam ne dañuy bëgg di jël gaal. waaw ak réinsertion sénégalais les les immigrés sénégalais. si si waaw réinsertion immigré sénégalais yi. Uh-huh. damay wax ne mbir yi li ci gën a yéeme. Uh-huh. gën a yéeme man gën ma cee gën ma cee xaw a yéem tuuti mooy. Uh-huh. E, courage bi nga xam ne moom la booy am. waaw ñiy dem ci gaal gi courage bi ñu am. mu leer na ne am na ñu demoon démb décédé. te du yàq dara dara dara ci seen engagement seen i pas-pas ñi bëgg a demaat. loolu lu gaa yi war a bàyyi xel la lan moo motiver. Mhm. ñooñu ba nga xam ne seen dund gi léegi ak dee gi benn la ci ñoom muy mhm. premier point. Mhm. deuxième point bi mooy. Uh-huh. lu tax lu tax gouvernement bu Sénégal. mu am benn benn jumtukaay bu mu mën a baaree loolu. Uh-huh. maanaam mënul indi benn support boo xam ne mën na baaree loolu. dama jàpp ne Séné gouvernement Sénégal. milliards yu bëri yi ñuy traîner ne moom moom mooy budget Sénégal milliards yu bëri yi ñuy ak ñoom seeni i seen i seen train de vie cher bi mu cher. Uh-huh. yaakaar naa mënoon nañ cee mënoon nañoo xool beneen solution boo xam ne ndaw yi nga xam dañoo nekk Sénégal hmm. gisuñu seen bopp Sénégal ñu def am ñu ay ay ay ay ay jumtukaay yoo xam ne ndaw yi nga xam ne ñu ngi Sénégal mën caa toog liggéey. Hmm. comprendre nga. man daal loolu loolu daf maa xaw a jaaxal trop bu ñu demee tey ba nga xam ne ay économies. économique ñoo xam ne ay jeunes sénégalais lañ. dëkk ci mhm. banlieue bi ku mel ni mën naa jël exemple ku mel ni Aziz Ndiaye. am benn usine boo xam ne diw lay defar. jël ay ndawu Sénégal di leen fay salaire ñu fay liggéeyee comme que Aziz Ndiaye nga xam ne benn jeune sénégalais rek moo mën a def loolu léegi est-ce que état bu Sénégal mu mënul defar ay usines yu bëree bëree bëri récupérer booy yi di leen fay xaalis ñu toog seen réew liggéey. ah loolu de mën naa ne. mais lan moo koy lan mooy tax mën a nekk. mooy ñi nga mhm. xam ne ñun ñun responsabilité aussi ci ñun la parce que ñun tamit ñi ñuy fal il faut ñu leen di xool bu mhm. baax. Mhm. ñu xool ñi ñuy fal dafa am solo. ñi nga xam ne bu ñu leen falee ñu jël seen intérêt bopp teg ci ginnaaw jël intérêt population bi teg ci kanam doxal. gis nga nit. gis nga nit da ngay bëgg yaa fi def lii ci lu baax yaa fi def ci lu baax nit dafa bëri bëgg loolu waaye ñun malheureusement. berki eh, émission bi passé maa ngi koy doon wax na ñun lan lañu def yàlla suñu borom ba tax mhm. mu war ñoo jox façon njiit yu mel nii ñu am lan lañ def yàlla mhm. suñu borom parce que ñii nii ñuy doxee boo xoolee bu baax càmbar seeni mbir mhm. ñii du ñu du ñoom ñooy développer Afrique dama généraliser waxuma Sénégal kese njiit yi ñu am façon njiit yi du ñoom ñooy def développer Afrique te Afrique vraiment comme li ñuy wax rek am nañ lépp pour war a mën a dund dund bu paisible mm-hmm. am nañ mm-hmm. yàlla sunu boroom jox nañu suuf mm-hmm. jox nañu géej jox nañu ay dex jox nañu ay plage jox nañu jant senegal tey jii yàlla xéewaleel nañu loo xam ne tey jii buñ ko tegoon ci loxo yu leer koo xam ne xam na li muy def te bëgg na ndamul senegal kon tey jii fii ak cinq ans jëm dix ans nit nit ñi hmm. nga xam ne ku yàlla wërsëgal bañ ne diw mi milliardaire la ci monde bi hmm. balaa ngaa yëg ne yow milliardaire nga dangaa dem Dubaï hmm. doo ko yëg ne yow yaa bokk nga léegi ci milliardaires yi mais loolu tey jii tey tey bu bu fekkonte ne liggéey nañ senegal dëgg dëgg dëgg fi ak cinq ans dix ñun Sénégal ñooy raw Dubaï parce que am nañ ay ressources yoo xam ne sunu borom génneel nañu ko mu bees tàq te bëri te lépp a jàppandi nag mais mm-hmm. est-ce que gouvernement actuel teg nañ contrat yi ci fañ niñ ko war a doxale ba nga xam ne dina doon njëriñu Sénégal je ne le crois pas franchement je ne crois que ni euh, le gouvernement sénégalais mettre na toutes les dispositions qu'il faut pour que ressources yooyu mën a nekk lu bénéfique pour le Sénégalais je ne le crois pas franchement. benn benn affaire daal ku baax ku baax benn affaire dinaa la ko xamal. Hmm. maanaam tant que ñu ngi basé wu ci politique politiciens yi nga xam ne 68 ba léegi bi Sénégal amee indépendance ba léegi teg yooyu ñoo fi nekk. ak ah. ak ñi nga xam ne juddu nañ après indépendance ku mel ni président Macky Sall. Uh-huh. te amuñu sens que ne ñooñu ñooñu ñoo leen formé mooy ñi fi nekkoon 68 ñoo formé ñii ñu jiite tey. Uh-huh. ñi ñu jiite tey xam nga ñoom la lañ lan lañ mën a lan lañ mën a ñoom lan xam nga lan lañ mën a defar ñoom. Uh-huh. fekk koo xam ne mille amul woon dara. wala su amee dara li mu am bëriwul. Uh-huh. ñu defar ko mu sàcc xaalisu réew mi yor ay milliards di voyager fu ko neex. Uh-huh. ak njabootam. ñoom ci waaw ak njabootam ñoom ci côté boobu moom dañ cee xarañ. Uh-huh. extraordinaire kenn mënu leen ci. defar koo xam ne yorul woon dara ñu defar ko ba mu yor. ñoom côté boobu mën nañ ko. Sénégalais yi ci boppam ñoo war a yeewu am fulla am fayda jëlee fi ñi nga xam ne ñoom la ñuy tuddee les politi politiciens. jëlee leen fi. tout récemment boo gisee seen seen seen deal bii nii entre Idrissa Seck ak Macky Sall rek. Mhm. ku mu yeewul dara du la dara du la yee. dëgg la dëgg la comprendre nga ñuy waxante fi lu nekk mu naan ko ay président toll ni président République toog naan wàcce caa wàccaa caa caa nga jàpp ni kii li waa ji def la wax fekk pendant quinze mois ñu ngi waxtaan. réeróowul benn yoon ba di ko tuddee mbërum làmb. waaw pendant quinze mois ñoom ñaar ñi ngi waxtaan wu ñu benn yoon. Uh-huh. donc bu ñu benn jeune boo xam ne dafa am ambition ku mel ni Ousmane Sonko fi mu nekk dañ koy kàmbal di ko pexeel di ko lu ne ñu ngi ko koy kereel. Uh-huh. man jàpp naa ne bu ñu amee Ousmane Sonko ci Sénégal Sénégal dina mës a changé mais tant que ñoo fi nekk ñi nga xam ne ñooy ñooy paa yi nga xam ne ñoo formé ñoom Macky Sall ñii ñoo formé ñoom Idrissa Seck. Uh-huh. plein d'autres plein d'autres Sénégal bu xoolal du mës a fi mu nekkoon daaw daawaati jéeg fa lay nekk. kon kon kon ñu ñuy nax kon yow da ngay prôné pour que ñu def un changement changement radical raxas politique mais loolu moo parce que waaw eh, xam nga olof dafay wax ne kuy wut moom mhm. kuy wut mhm. moom amul jikko mhm. gis nga Macky Sall ah, yaakaar bu rëy la sénégalais amoon ci moom xam nga lu waral loolu loolu li wane woon li wane woon moom loolu doxoon Sénégalais yi am ci moom. yaakaar non non Macky Sall Macky Sall Macky Sall gars dañ ko fal gars dañ ko non Macky Sall gars dañ ko fal c'était juste pour. Mhm. benn yërmande bu sénégalais amoon ci moom. sa waay man dama doon dem place Obélisque. wane victimiser place Obélisque place dem naa fa ba tàyyi di sànni xeer. ngir war di jóge mooy li may expliquer da déglu tuuti. waaw mooy li ma la mhm. expliquer. waaw waaw kuy wut. Mhm. kuy wut. amagul jikko. bis bu amee nag si lay wane jikkoom. parce que mm-hmm. exemple bi mu ngi nii ci sunu kanam muy président Macky Sall. Mm-hmm. dañ ko fal fal boo xam ne daanaka mosuñu koo fale Sénégal président. niñ mm-hmm. ko falee. yaakaar boo ñëwee la woon ndax mu wane woon ak ak yorute gi. waaye. parce li mu lim doxalee. xam naa mi ngi fii am solo te dafa guddi Sénégal mais bu fekkee ne sa jot dana la ko may dañ lay bañ a bàyyi ci antenne bi. ñu àggale ak sëñ laat bu ko defee ñu bàyyi ko xam naa suba la altine ca foofu war nañu liggéey. sëñ sëñ maa ngi maa bu baax fàttali ni sëñ Abdoulaat moom mooy euh, coordonnateur bu bu bu nag kuréel la goo xam ni gu am solo la di jàppale immigré yi ci accompagner leen ci ay projet ak euh, lu bari. wax na ni sax yëmul ci loolu euh, dañuy fay. àgg nañu sax di compagnie kon ñi nga xam ne dañu nekk foofu ay ci Sénégal ba ñu am ay ay projet li ñu dégg ci sëñ Cheikh ak sëñ Bamba ñu wax ko mooy Euh, kon jafe-jafe bi lépp mooy état bu Sénégal bu ma sukkandikoo ci Abdou Lahad ci ay kàddoom it mooy état bi am na côté boo xam ni def na li mu war a def waaye kon ñun askan bi dañuy des ci dem saytu ji information boobu maanaam procès yi nga xam ni itam ñi ngi koy ubbi di ay compagnie temps bi itam ñun mënuñu ko aguantar maanaam pour pour pour pour xaar ko Abdou Lahad euh, tudd nga ni loolu mooy jafe-jafe bi ba tax na sénégalais yi bénéficié woon ci. lu bari loo xam ne état dina ko taxawal malgré ñàkk jàng bi sax dana nu yóbbe loolu mais ci biir loolu ndax matul système bi sensé wu maanaam conditions yi xaw a wayaf tuuti ñu xam ne kat ñun quatre-vingt wala wala trente comment dirais-je soixante-quinze pour cent sénégalais yu ñu yor kat dañu am ay bopp yoo xam ni dañu ndaw bu dul ndawit maanaam dañu jàngul état bi li muy teg ci daf koy def ci niveau intellectuel ci biir loolu yéen nag ngeen fas yéene changer forme bi. ba man mi nga xam ni dama nekk Daara jóob nekk baykat boo bindee A duma ko xam boo bindee O duma ko xam ci naan ngeen di wàcce yéen niveau bi nga xam ni yéen a ngi ci accompagner nit ñi ngir ñu dem ci banque yi ngir ñu defal seen procès ñëw dem ci banque yi ñu ñu financé leen loolu itam bi jafe-jafe bi ñuy amee tey ndaw ñuy jóg nga xam ne tey koo ci tàllal micro lim lay daf lay giñal ci sëñ bàmb ne la man damay dugg ci géej gi dem kon tey Sénégal am na problème naka ngeen xalaate ba woyafal mbir yi waxtaan ci ak njiitu réew mi ak yu ni mel ba ba loolu am fi ne tey Bouscar maanaam wër solution fi ne ni jot na mhm. ngir téye ndaw ñi Sénégal. d'accord boo boo suñ ko maa ngi lay. siyaare mhm. bu baax jaaree baax sëñ Cheikh ak. sëñ euh, Bamba Der Bamba Der mu ngi doon woote ba nga may ma ma présenté ko sax sëñ Bamba ñu fàttali nii moom euh, mi ngi ci euh, tubaab Brésil TV. di uh-huh. ci def ay liggéey yu am solo wax de yàlla foofu. ñu gërëm ko sëñ Bamba xam naa bu fekkee mu garde rek téléphone bi incha allah sëñ Bamba Der. sëñ Ablaye waaw. Hmm. Hmm. d' accord léegi euh, sëñ man je pense que. Uh-huh. fi may orienté waat débat bi. Hmm. Euh, mooy que ne boo xoolee conseil des ministres bi ñu jàll. le président bi mu demee. Uh-huh. Euh, Paris ba ñëw. ba waxtaan ak européens yi. ak Union européenne ba. xam exactement lan la war a taxawee ak nan la war a def euh, président dafa ci conseil des ministres bu mujj bi mm-hmm. dafa wax ne dafay créer benn conseil national mm-hmm. pour l'insertion mm-hmm. et l'emploi des jeunes uh-huh. muy CENIJ nga xam ne fii ak le quinze décembre lañ ko war a teg en place pour mën a taxaw

mën a xam ni am xëy gën a mën a yomb mais toujours rek ma wax ne euh, euh, le problème mooy que ne euh, suñ góor a jeune bi nekk saam yabal bi nekk jeune bi nekk saam yabal pour pour ñu xam saam yabal ko c' est dama jox naan tur boobu rek parce que c' est la bu nekk ci entre Bawol ak Ñambur léegi na xam ne jeune jeune boobu mhm. du cherchewul information information du ko fekk foofu mhm. est-ce que est-ce que est-ce que état bi am na moyen pour mën a tous les villages uh-huh. du Sénégal mais xam nga état bi dafay gouverner mhm. ak ay représentants locaux uh-huh. euh, programme am yëpp dem na mi ngi ci gouvernance yi ak préfet yi maire yi war ko jàllale acteurs politiques yi nekk ci localité war ko jàllale et cetera et mais jeune bu fekkee dafa mën lépp ba mu foo gisee du seetaan télé du seetaan journal du lire journal du déglu rajo whatsapp lay nekk mu ngi déglu moom ay musique am ak ay wax wax ak ay ay xaritam c'est ça c'est ça loolu moom ak nekk ci groupe yi. Uh-huh. mais léegi nag dara loo xam ne lu koy avancé la loo xam ne kenn ku ci ko ne si kaay mu formé la deux mois. Uh-huh. mi ngi calculé deux mois yu koy formé mu war a toog. te léegi sax dañoo mujj di leen formé te leen fay. Uh-huh. man formation yi dem à Diourbel. te ñu formé immigré leen retour ñëw nga formé leen yaa leen yor. deux jours yi ñu fay nekk noonu euh, seen dara du manqué comme ñu nekk hôtel. former leen bu paree dañu leen di jox per diem. Uh-huh. per diem boobu ñu jox bu amul duñ ñëw. waaw parce que parce que xam nga lu tax. ça dafa uh-huh. jot. Hmm. waaw dafa jot dafa jot ñun c'est xam nga nit ki. Uh-huh. Euh, foog nga sacrifié wu seen cheikh. dëgg la maanaam ki du ne man bu ma demee di former wu pour un mois deux mois. lan laay yóbbu sama kër mais damay former wu di pour mën a am lu gën li nga nekkoon. nit ki boo amul métier. mais mënoo liggéey. dëgg la boo amee métier te qualifié woo. Mhm. mais mënoo liggéey. ñu ñëw Brésil te am métier dañuy ñëw rek dem liggéey. Mhm. mais ñu ñëw amuñu métier lu ñu mën a dem lu mën a def dem nekk ci njaay mi. te am te am njaay ñëpp mën ñoo xëy di jaay. sëñ euh, xam nga lu ah. mhm. am réew. am réew ñu ko tënk ci ne analphabète yi suñu jàngul rek. amuñu mënuñu réussir ci réew mi loolu c'est extrêmement grave xam nga bamba suñu bamba waxul foofu ah. waxul ma non non non waxul ma ne non attends bamba suñu bamba suñu bamba non non non bamba suñu bamba waxul ma am réew ku jàngul ñoo parce que réewum Sénégal ñi jàngul ñoo ëpp fuuf ñi jàng administration bi yëpp boo leen xooloon ñiy liggéey nguur gi leen fay. Uh-huh. cent mille personnes ci lay toll. ñoo gën a néew ci Sénégal cent mille personnes. Uh-huh. cent mille personnes ci treize millions. dëgg la euh, li mu wax mooy. Uh-huh. dama ne. jeune bi nga xam ne jàngu nekk na ci daal ji ba génn. wala wala wala mu ngi ci leneen am ñàng am ñàng rëcc na ko. mais moom. mënoo ko ñëw takk ko parce que Sénégal mm-hmm. nekkuñ ci réew mu dictature boo xam ne mm-hmm. mën nga takk nit ki ne ko par force dama lay former mais jeune boobu noonu moo war a dem mu wuti formation uh-huh. mm-hmm. fooy jeune boobu moo war a dem fexe ba formé wu ci dara am formation mais mais aussi mais aussi sëñ la lan la ko état tegal si foofu foofu sëñ Abdoulaye foofu état a teg ay mécanisme yu yoo xam ne. dina jàpp ni vraiment ko pare. vraiment vraiment mécanisme yooyu. Mhm. mécanisme yooyu. waaw non mécanisme yooyu teg nañ ko. Uh-huh. mécanisme yooyu. Uh-huh. teg nañ ko dans les quarante cinq mhm. départements foo ci uh-huh. def am na maison de mhm. uti y a de plateforme yoo xam ne ay plateformes de de formation la da ngay ñu fayal la formation bi nga formé wu. ça veut man man li ma leen di wax nii dama nekk ci milieu bi. Uh-huh. parce que man man je suis dans le cadre privé. waaw waaw. di accompagner ay nit. mais problème bi mooy da ngay gis ne amul benn sénégalais buy ñëw amul benn sénégalais amul noo xaar rek amul benn jeune sénégalais. Mm-hmm. bu muy jaral mu mm-hmm. jël mille francs mm-hmm. mille francs sax dugal ko pour ne naa am information wala naa def lii wala naa def laa. ça veut dire que nekk ci li nekk rek. Mhm. maanaam jéemuñoo cherché dara dara loolu moo tax euh, gaal yi yomb parce que nit koo xam ne yaa ngi sa coin toog. xalaatoo dara dara dara dara jéemoo ne man naa jëm wut formation menuisier. bu mhm. jéem a créer benn place fii wala naa jéem a def lii non non non da ngay toog sa coin rek di attaay rek. di mhm. di patience euh, léegi nag. waaw waaw est-ce naa est-ce que man mën waaw si Bamba waaw eh, sëñ Bamba. est-ce que mën naa développer tuuti. waaw tuuti rek mu bañ a yàgg nag parce que xam nga. non non non mën a développer. waaw xaaral xaaral may ma tuuti sax parce que may ma tuuti moom la sëñ Bamba. ci bëgg dugg eh, bëri na xam nga moom. mais dama dama am benn point bu ndaw rek boo xam ne moom laa bëgg a wax euh, ki ki doon expliquer léegi nii jàpp moto bi. waaw sëñ Abdoulaye euh, dama la bëgg a expliquer ci sëñ Abdoulaye dama la bëgg a expliquer ci lu yomb ne. gis nga réew pour mu dox réew pour mu dox ca ndaw ya la ñuy yaakaar Mm-hmm. ndaw ñi même bu fekkee amuñu benn qualification jànguñu soit amuñu métier du teree ñu servir seen réew point yi ñu mën a seen réew bëri na. Mm-hmm. bëri na trop premier point mën a seen réew dafa bëri. Uh-huh. c'est-à-dire que ni nit su jàngul français wala jàngul wala jàngul alxuraan rek wala daara ja lu jógee rek. Mm-hmm. mënul defar d'habitude ñi nga xam ne jógee sax ñooy gën am maturité ci nu ñuy gestionner ci ñi nga xam ne dañoo dem ci école ya jàngi. ñu ci bëri Brésil gii ngay jël exemple am na ñu bëree bëri ñu ngi fi qualifié wuñ ci dara mais dañuy liggéey ñu ngi ci usines yi brésilien yi di leen jël ci seen i usine uh-huh. ñuy liggéey daleen leen former pendant trois mois boo ñëwee boo signé sa quatre ans pendant trois mois uh-huh. salaire xam ne ki nga xam ne qualifié na ci liggéey bi salaire bi muy am yow doo ko am mais trois mois d'expérience yi bu jàllee yéenay tolloo salaire uh-huh. dañ lay motiver wan la yoon bi ne leen lii la lii nii la nii la lii nii la ba pare dañ lay fay gis nga fay boobu ngeen di fay booyoo ngeen di former c' est mm-hmm. normal mm-hmm. parce que yéen budget Sénégal ay milliards lay traîner mm-hmm. ay milliards yu bëree baree bari train de vie état bi cher lool maanaam yéen yéenay jariñu jeunes yi duñu jariñu moo tax booy di mëkk gaal gi di dem fu leen neex di di dee ci ndox mi nga xam ne du leen ñii dañuy dee ñi demoon démb dee mais ñu war a dem tay seen engagement dara changé wu ci tey lañ gën a am ambition pour jaar ci ngeen war a xool nan ngeen koy lijjantee xool yan projet ngeen bu ñu demee ba ay commerce ay nit yoo xam ne dañoo góorgóorlu rek ba taxawal seen i usine ay nit ñuy liggéey ku ne di for ay cent mille quatre vingt cinq mhm. loolu ñun ñu ko état bi essayé dëkk bu nekk ñu euh, réformé di leen fay mu liggéey loolu tant que defuñu ko gis nga gis nga ni du changé day gën mani actuellement nii géej gi pour ton information dafa tempérament ak affaire mani pour ci taalal micro mu ne la barki Serigne Touba yàlla dem. waaw sëñ Bamba. loolu c'est grave sëñ. Eh, sëñ Bamba pour ton information am na lenn loo xam ne jub na ci mbaaxu suñu borom la. su nekkee am na lenn lu ci dëng matali doomu aadama la ñu ngi koy tuub bu baax a baax. di ko ah, jégalu waaye kese moo ñu ñor Sénégal ah. kese lañ bëgg Sénégal kese lañ bëgg mu mu avancé. Ah. kon euh, maa ngi leen di bu baax a baax di guddal gi waaye damaa amoon yéene rek participer ci nekk. jërëjëf ñu ngi rafetlu bu baax li nga li nga dugg ni nga ko duggee tamit am na solo. waaye pour joxewaat information bi ki ñu am ci gan di suñu invité nekkul ne dafay liggéey ak état bi non. c'est privé sëñ laat comme ça ñu bañ a jàpp ne yow da nekk ci état bi mu nga ku dugg ci Google rek dañ ko gis. ay photo ma njiitu réew mi da jàpp ni ci état la loolu dañ bàyyi nga leeral. fay la ak ak état non c'est que xam nga sëñ Gora xam nga am réew ma ñoo ci nekk. Uh-huh. di liggéey sans état. Uh-huh. Euh, il faut que ñu liggéey état bi. Uh-huh. parce que tamit euh, li ñuy jox teg lo ci loxo askan bi yëpp ci état bi lay jaar parce que état moom mooy mooy orienté politique. d'une d'une nation. am réew état mooy teg moo tax ñuy fal jiitum réew. mu ñëw teg gouvernement teg ay mécanismes teg. benn vision lii lañuy def pour mën a àgg fii ak fii ak fii mm-hmm. léegi boo defee nag képp koo xam ne nag acteur de développement la mm-hmm. ci action état boobu ci ngay topp ci ngay référé wu ci lépp li ngay def FAES mm-hmm. formation action pour l'employabilité des immigrés et des jeunes uh-huh. nga xam maa ngi ko créé depuis deux mille quinze bi ma ñibbisee Sénégal pour accompagner jeunes yi femmes yi immigrés yi de retour yi mën leen a fexe tette parce que suñu njëriñ mooy mm-hmm. nañ fexe ba immigré bi nga ñibbi si ñu ko bu ñëwee fan lay teg tànkam uh-huh. lan la état bi def pour moom yan bànqaasu état bi la mën a jaar pour mën a fexe ba réinsertion pour retour am mën a gën a yomb mm-hmm. yan mécanisme de financement moo existé mm-hmm. ak yan canevas la laaj ak nan la ciy doxee yan mécanisme ñoo existé pour wàllu accompagnement ci pour wàllu fexe ba na xam ne bu defee dara du soox mm-hmm. parce que tamit on qu'on dise la vérité uh-huh. immigré yi yi fii bëri yi nga xam ne ñi ngi ñëw di investir uh-huh. ñu ci bëri perte nañ ba delluwaat immigré jawaat te loolu lépp li koy waral mooy ñàkk expertise bi nga xam ne dañ ko jox solo mm-hmm. mooy ñëw fexe léegi da lay dugal nga koy dugal nga def étude de ba pare tamit maîtriser étude de projet bi dem seeti ay bànqaas yooyu parce que mi ngi mel ne tey jii Argentine foofu noonu. Uh-huh. wala Brésil bi uh-huh. ngeen nekk noonu. Uh-huh. mais looy def da ngay dem ci notario bi. da dem ci notario bi. Mm-hmm. dem ci gestor bi. yo, mm-hmm. yo muy bien lo mm-hmm. que hablo sí. con vosotros. Uh -huh. Estuve así 14 años uh España. Uh muy bien cómo funcionan las cosas. Cuando estamos en estos países, vamos a seguir todo muy bien. A, seguir con, la, ley. Acá, acá pero, una cuando, ley. Pero acá, acá, hay, le venimos una, ley que te permite para que vos puedes tener todo el trámite, pero muy fácil, no te complica la cosa. Como Porque esta, es cosa. Tenagante no, toma sabes, de está posible esto? Porque mm. ahí la gente respeta la ley. Ah, la gente paga, pagan, Pagam, pagamos lo tasas. extranjero, pagas todo. Aquí nadie paga. Sí, Senegal. Uh -huh. Quem foi presque établi li mu war a am ci xaalis yëpp war a jëlee ci ay taxes. Mm-hmm. ci ay impôts. Mm-hmm. mais pour nit ñi fay impôt problème la. waaw mais mais aussi aussi xam nga lu toujours ja booy wax nii sëñ Abdou may indiwaat toujours rek. ci mm-hmm. responsabilité état xam nga lu tax ma wax loolu ah. ngay gis euh, lu mel ne eh, domaine domaine nga ubbi atelier wala nga ubbi euh, place di jaay domaine yabal fay agent ngir ñu war a ñëw nga war a fay. léegi li may wax ci responsabilité mhm. kenn ku nekk ci ñun nga xam ne da ngay jël réew mi jàpp ne yow da ngay liggéeyal yàlla mais ki nga agent domaine bi war a ñëw sa place bi la la patente nga war a fay cinquante mille francs xam nga lu mu lay wax waaye na jox ma jox ma vingt mille ma dem après grawul ah xam nga après ñu gérer ko beneen yoon mais loolu mooy problème mu Sénégal aussi euh, te loolu ci secteur yëpp la. Euh, mën naa ko wax ci secteur justice franchement franchement mosuma franchement gis loolu mais en tout cas Euh, Seychelles xaar ma dolli la beneen. ñu euh, dellu si ma dolli la beneen man damaa yoroon atelier. man damaa yoroon atelier di liggéey. Euh, donc xam naa bu baax. c'est vrai c'est vrai mais gis nga Seychelles. Uh-huh. Seychelles gis mm-hmm. ngeen am réew am uh-huh. réew. Uh-huh. man ñëw naa ba Caxias. Caxias bi nekk ci wetu Brésil. Porto Alegre waaw. Mm-hmm. Caxias. ña fa nekk ñëpp ay ressortissants italiens la ñu woon. le maire bu fa nekk tey jii sax descendant italien. italien si si. mais xam nga yi. Uh-huh. Casillas ak Argentine googu. Uh-huh. Buenos Aires. Uh-huh. alal jun am fa lañ ko jëlee. moom la. ñoom dañu ñëw immigré si. dellu seen réew. seen réew defal leen ay benn politique. li nga xam ne moom la Sénégal teg nii tey. mooy mooy teg politique d' lu mel ne ay ADP ba. Mm-hmm. lu mel ne ay DPMA lu mel ne ay ay FONGIP ay yeneen kii yoo xam ne mm-hmm. ça veut dire que c'est juste pour accompagner la duñu sax ay institution yoo xam ne dañ lay jox xaalis mm-hmm. mais dañ lay accompagner ba yow nga xam nga am vision bu leer ci li nga bëgg a def parce que nit ki fii ak amul vision bu leer ci li mu bëgg a def lu mu dugg bu ci dugalee xaalisam ci mu day yàqu pour pour recadrer waaw mooy le problème parce que état bi bu tegee ay mécanisme ah. te mécanisme yi nit ñi demuñu fa état bi amul droit ñëw taxaw na par force da ñëw ma former la mm-hmm. nit ki boo war a dem chercher information ah. dem bu ko defee yow boo demee yow koo xamee boo demee ci préfecture bi mm-hmm. laaj leen ñu wax la boo demee ci gouvernance bi laaj leen ñu wax la boo demee ci mairie bi mm-hmm. laaj ñu wax la boo demee ci ARD yi ça veut dire que mécanisme yi dañu bëree bëri ba nga xam ne am na ñu bëri tey jii nii mu ngi départ mu ngi commencé ci yow sëñ Cheikh fan nga dëkk Sénégal. Géejawaay. Géejawaay. waaw est que bi nga ñëwee Géejawaay. Mhm. est-ce que mos naa dem préfecture Géejawaay. wala gouvernance Géejawaay. déposé foofu projet mosul wala wala wala wala wala ca mairie ba. wala wala wala wala non ça veut dire que gars yi dañu dañu te pourtant boo ñëwee Europe li ngay njëkk def mooy jéem a xool assistante sociale bi. jéem xool léegi nan laay def ba jàng ba jàng dégg tuuti espagnol. jéem a xool léegi yan waaw a xool tamit yan façon formation moo fi am. li ma mën a def. Mhm. jéem a xool nangam jéem a xool nangam parce que ça veut dire que da ah, fii kat foog ma def nii pour ma dund mais fii nag état bi day ñëw imposer nit ñi ne leen ah war ngeen a jàngi. war nañ leen a former war euh, tegal naa leen kii yëpp nii nii nii mais nag il faut ngeen def ko pour pour que ñu mën a doxal ba nga xam ne réew mi mën a amum xëy am lépp mais bu fekkee ne ñun ñi koy defar. Mm-hmm. ñëwuñu répondre ci dugg ci. Mm-hmm. c'est ça le vrai ça le problème le vrai problème mooy que ni mooy nit ñi mooy dañoo jéem yi. Ah. dañoo jéemut a gëstu nan la fexe ba former wu nan la ñuy fexe ba utiliser opportunité yi leen état bi tegal. état bi day am ndam toujours si ñoom parce que ku si ñëw taxaw loo mën a wax ñu ne la ah est-ce que dem nga tel place. Mhm. looy wax mooy dem ma fa de. ah euh, mais boo fa demul léegi lan ngay xamee léegi yow lan nga far war a taxaw. sëñ sëñ sëñ ñi nekk ni ñooñu ñëpp ñi nga xam ne dañoo nekk nag bitim réew. Mhm. gis ni bitim réew yu doxee. dañuy jàpp bitim réew ni muy doxee noonu la Sénégal war a doxee. c'est ça moo ñuy poussé ci erreur toujours te dafa nekk ñaari dimension yoo xam ne. wax dëgg yàlla c'est la réalité réew yooyu fi ñu toll réew mi tollagu fi réew mii pour mu toll foofu fi boobu toll ñooñu dañoo liggéey ñooñu seeni doomi réew dañoo liggéey sëñ Ablaat mhm. man du ma ak yow foofu xam nga lu tax mhm. Mhm. mooy bi nga ne lu tax di am ci suñu réew yi mënul am senegal man jàpp naa ne lépp non pas fi am de pas mënu fi am. non non pas fi am de dama ne. dama ne àggagun foofu. waaw maanaam lépp xam nga lan la dama foofu. xam lan la lépp xam nga lan la volonté gis nga nit. da am pas-pas am volonté. mais fii am volonté bi xaaral ma ñëw ma ne ma tuuti ma développé mm-hmm. tuuti rek. gis nga nit da ngay am pas-pas da ngay am mm-hmm. volonté. gis nga Chine. Mm-hmm. ah biñ leen bombardé ak bombe atomique. mais loolu yàggul. tey jii suñ demee ba nga xam ne ñu ngi buuxanteeg États-Unis d'Amérique la première puissance mondiale. Mm-hmm. mais lan moo ko waraloon lan moo waral loolu volonté. vo nit da ngay am pas-pas Sénégal mm-hmm. suñu wax particulièrement Sénégal Sénégal war nañoo war a mën a am volonté ñi jiite réew mi am volonté defar waaye tey jii boo jógoon. am sa mm-hmm. benn projet ne damay dem ci municipal pour laaj ko ba xam. lan lan lan fan a fan la ma war a mën a jaarale ba ma réussir sama projet bi yow ki ngay njëkk a dajal sax mooy dul am sa jot nekku foofu pour liggéey Sénégal c'est-à-dire cest dire boo nekkee fii ñun ci réew yi ci ngay gis différence bi mais boo nekkee Sénégal doo gis différence bi mm-hmm. fii nit ñi fii fii dañuy liggéey mm-hmm. fii fii ñemewoo benn policier arrêté la nga naan danga koy jox mille francs wala nga koy eh, xalaat xalaatoo ko benn xalaatoo dem ci municipal. ah secrétaire ba di la recevoir wala du la attendre bien non xalaatuñ ko. Mhm. dégg nga fii boo fi jógoon tey ji am projet dem ci municipal ba ñoom ñoo koy jël porter la projet bi nga gis nit ko dañ ciy sonne da nga yaakaar ne sax ki nga la tellement da koy jël def ko liggéeyam def ko yëfam dox ci li doxo ci noo xam ne sax yow tey jii boo ko doon defee Sénégal doo ci def coono boobu moom mu def ko pour nga réussir maanaam volonté jàppale boobu ak volonté liggéey bi nga xam ne moom la yàlla suñu borom jagleel kenn ku ne nga xam ne ci fànn wu ñu la teg foofu la nga war a jaa jaamoo yàlla suñu borom waaye ñoom gagne-pain la pour am lu ñu def seen poche weer dee ñu yóbbu seen njaboot aisé pas pour ñëw pour liggéey loolu mooy problème mu Sénégal duñ teg les hommes à la place qu'il faut aussi dañ lay fay fay fal yow nga puiser sa sa famille nga puiser ci sa directeur de campagne nga puis doo jël ñi nga xam ne ñoo jàng lii système bi nii nañ ko dexe nga jël ñi ko jàng teg leen fa ñu war koo doxal non politiquement la ñuy dundee Sénégal lépp ci ay xel la ak diil et loolu mooy problème bi loolu aussi dafay dem ci immigré bi nga xam ne nekk na fii tàmm système bi mais c'est très difficile pour mu ñëw Sénégal mën a aguantar temps bi. day na wax ñu koy gërëm sëñ Cheikh. waaw sëñ uh-huh. sëñ Cheikh euh, gis nga ñun bu ñu ñëwee ci réew yooyu ni ñuy immigré. waaw ak tubaab yi ni doon immigré ba dellu si. Hmm. buñ ko defoon rek buñ ko defoon rek Sénégal dox. ñi ne xam ñoo nekk ci réew mi. Uh-huh. buñ defoon ñooñu nekk ci réew moomu. waaw Sénégal dox parce que foofu noonu réew moomu. Uh-huh. koo ci koo ci gis koo ci gis bu xëyee. Hmm. du état day ñëw jàpp ci loxoom moom mooy xëy dem ak dem jàngi. Mm-hmm. bu jàngee pare. Mm-hmm. mooy ñëw jéem a dugg ci lu mat fukki métier ak juróom tubaab boo gis. Mm-hmm. dana dugg ci lu mat fukki métier ak juróom. waaw ah, waaw tànn ci ba nga xam ne moo ko mën a yor avenir am mu dugg ci. Mm-hmm. fii nag dañoo jéem dugg ci benn métier xëy yow na ataay toog métier bi nga am sax boo moytuwul emprunté wu ci. <laughs> mu ko métier bi doo ci doo ci doo ci mokk. état bi. non non non non xam nga xam nga boo nekk ci biir xam nga boo nekkee sëñ Cheikh. sëñ Cheikh. waaw sëñ Cheikh. sëñ Cheikh boo nekkee ci biir boo nekkee foofu ñëw nekk fii da ngay xam lu bëri. da ngay xam lu bëri foofu noonu yow tubaab bi. moom day tubaab bi day fay dem wuti formation. Mhm. da ngay gis tubaab boo xam ne photographe la. Mhm. lii la théâtre day théâtre day def nangam day def nangam. lépp bu ko boole di ko def. di mhm. gagné bi am normal di fay ay tax. Mhm. fii nag jeune bi day bëgg rek xëy rek moom suba toog ne état bi lay xaar. Mhm. wala mu toog ne. sëñ Cheikh sama frère la mi ngi mi ngi Argentine. moom lay xaar mu yónnee ma deux millions ma jéem wut nu ma bëggee dem. maanaam c'est que dañu am ay ay vision yoo xam ne. il faut ñu sensibiliser waat nit ñi. jeune Sénégalais yi. d'accord d'accord le président il dit que moom. Mhm. dana dana teg ay mécanisme boo xam ne. Mhm. incha allah bu tegee euh, conseil national boobu mu bëgg a teg. boole ko. yaakaar naa le yi nga xam ne yëpp état bi am na ko. waaw boole ko tamit yéen ñi xam ne ñu ngi leen di déglu. alors mhm. ñu fexe ba sensibiliser. sëñ Abdoulaye Balo ma jël nekk ci ligne bi waxtaan ak ñoom. sëñ Abdoulaye. waaw man ma xanaa da ngeen may kon ban ban. man xam naa ñu ñu daaneel ak kii rek ca bàyyi la sa kàddu yu mujj ñu daaneel ak euh, téléspectateur bi ne ci ligne bi après ñu bàyyi la nga. après après yow kàddu ndax xam naa ne heure bi guddi na Sénégal te temps bi. waaw léegi yow salaamaaleykum. salaamaaleykum. ñu ngi lay siyaare ku baax. maaleykum bu baax. non tudd ak fooy wootee. Djibi Diong laa tudd di wootee Sénégal. Djibi Diong ñu ngi lay ñu ngi lay dalal bu baax. maa ngi siyaare sëñ Cheikh maa ngi lay nuyu di la siyaare. ñu ngi lay fay jong. alhamdulilah. looy duggee ci ci. waaye ñu ñu ngi teewlu émission bi. ñu ngi ñu ngi teewlu émission bi. allo. ñu ngi lay dégg ñu ngi lay dégg bu baax. allo. waaye ñu ngi teewlu émission bi am na solo trop di rafetlu tamit liggéey bi bu baax a baax. amiin jërëjëf. amoon euh, amoon amoon ay question benn question bu ma bëgg laaj rek. allez-y mhm. moom dafa mel ni liggéey bu jëm ci immigré nga xam ne dañoo nekk bitim réew wala ñu jóge fa pour ñibbi si waat Sénégal. Mhm. léegi may laaj ki nga xam ne ki nga xam ne nag dafa nekk Sénégal te bëgg a dem moom te nar a dem wala mu bëgg a dem. est que moom taxawaayam ci ñooñu bokk nañ ci liggéeyam wala wala liggéeyam daal mooy ñi xas dem ba pare rek. dem bitim réew. Mhm. Ablaye dégg nga question bi. waaw wax ni ndax ah. euh, da nga taxaw. pour léegi dégg mhm. dégg naa question bi. Ah, naa ko nga tontu dégg naa ko euh, mais mais mais je pense que. Uh-huh. Euh, état état bi ci fi fi ñuy wax DGSE. Mhm. Euh, bu dee man sama wàllu bopp ñun Fayez ñun moom waajal kuy dem moom bokkul suñu liggéey. Ah, euh, ñun moom. Uh-huh. li ñuy saytu mooy. Mm-hmm. immigré bi bëgg a ñibbi si nan la ñuy fexe ba conseiller ko accompagner ko pour uh-huh. retour am. Uh-huh. mën a jàppali. ci lu taw ci yoon. ndax retour dañ koy waajal doo xëy rek ne cëpp ne lay taxaw. daanaka loo fi defit mën na am problème. Euh, beneen bi mooy. Mm-hmm. nan la ñuy accompagner jeunes ak femmes yi. Mm-hmm. ak artisan yi ba nga xam ne ñu mën a régulariser seen seen seen euh, système mm-hmm. euh, jóge ci informel dem ci formel mm-hmm. ak tamit mën a am ay formation mën a am financement mën a liggéey mm-hmm. euh, bu ko defee état bi DGSE ñoom teg nañ benn kii bu ñu wax bawos bawos boobu nag moom ku bëgg a ku bëgg tukki bawos boobu état bi tegoon ci DGSE ñoom ñoo lay orienté pour nga mën a dem ci comme euh, immigration régulière mooy immigration boo xam ne. normal bu tegu ci yoon la. tegu ci yoon kon sëñ jong. kon kon sëñ jong. yow dégg nga tontu. waa dégg naa question boobu mais am naa ah. beneen bu ma bëgg laaj ci wàllu artisan bi. ci artisanal. Mm-hmm. waaw waaw lu artisanal bi koo xam ne kii da dangaa bëgg a def formation formation bi. ci wàllum gestion lay doon ci walla ci wàllum sa liggéey yow yow mais artisanal dafa yaatu de ban ban xeetu métier. waaw bu fekkee ci wàllu ñaw ngay yëngutu maanaam wàllum ñaw. waaw xam nga bu fe mooy mooy ma doon wax sànq mooy mécanisme yi nga xam ne. Mhm. état bi teg na ko pour wàllu woo jël. te jii nii li muy wax noonu artisanal. ASEPEX moom moo yor loolu. Mhm. ASEPEX. mooy docteur Malick Diop moo ko yor nga xam mu ngi nekk ci VDN bi fekkee ne yow da nga nekk ci wàllu artisanal bëgg tey jii nii lu jëm ci wàllu formation wala nga bëgg no écouler sa marchandise bitim réew mhm. di dem ci foire yi mhm. international yi mhm. di mën a jaay sa matériel bi ngay liggéey wala ñoom nga toog Sénégal ñu lëkkale la ak chinois ba nekk Guangzhou bëgg nangam nangam nangam ñu lëkkale leen ngeen wax ci technologie ba nga mën di ko jaay mu lay fay par euh, ligne bancaire wala nangam nangam. yooyu yëpp déjà sa existe te nit ñi bu ñu demee wuti ko daan ko gis il faut que ñu nangoo xool dugg ci. aller vers l'information aller vers l'information waaw kay il faut mm-hmm. chercher l'information. Hmm? qui mm-hmm. détient l'information détient le pouvoir. bu amul benn information nag yow doo mën a xam fooy jëm doo mën a xam fooy taxaw fooy teg sa tànk. il faut que ñu informé wu bu ñu demee ba informé ba xam ne ñu ma ni foofu leer na pour ñu defaale laaj bu mujj bi rek ndax xam naa ne guddi na Sénégal te it jong dafa mel ne dafa am beneen laaj bu mu la bëgg a laaj waaye yow it boo koy topp nga cee jaaraale rek nga leeralaale maanaam ma dugalaale ci laaj bi nga leeralaale sëñ jong même tuuti rek nga leeralaale si ku bëgg projet bëgg am ñu jàppale la nga réaliser sa projet projet bu mu mën a doon ci yan fànn nga ko war a mën a teg ak nan lay mën a jokkook ak yow mhm. waxtaan ak yow ngir nga mën koo teg mhm. ci pour mu mën a réaliser projet xanaa loolu itam day nekk émission spéciale boo xam ni daañu ko defaat ak ak ak yow tey li ko tax a jóg mooy mbëkk mi ñuy dem waaye luy solution bi mais li nga nekk nii tey solution la ci mbëkk bi tey fekkee tey immigré bi dañ ko accompagner ba mu ubbi ay projet am mën a def foofu Sénégal donc man am ñetti mbokkam ñeentam yu ci liggéey loolu fekkee yàgg na rek ak diaspora bi ni mu baree ci biti donc dana doon solution ci xeex bi ñuy xeex mbëkk mi mm-hmm. kon yaakaar naa loolu fekkee dañuy wut solution war nañu ko yaatal mu leer ci boppi nit ñi incha allah daanu ci am jeneen jataay ak yow yoo xam ni daanu ci mm-hmm. waxtaane lu bari wante mm-hmm. na am na ay laaj yu yu ñëw paate laaj na ko xam na ci ci beneen émission waaw mm-hmm. loolu daañu ci sañ émission du ci xaaj sëñ jong sa dernière question wala sa dernière contribution bu ko defee ñu tàggoo ak ab laat waaw waaw waaw waaw li may li may wax rek mooy di rafetlu taxawaay bi ak waxtaan bi am na solo uh-huh. mais aussi euh, pour ñuy dem di seet di mm-hmm. xaw a simplifier tuuti wax bi wala ñu koy complété ba nga xam ne. Mm-hmm. buñ buñ da taxawalee projet yooyu ba pare ñu ne ku ko soxla nangam ngay dem. pour mm-hmm. laaj ay renseignement mais nit ñi comme jànguñu yenn jàng yi. am na ñoo xam ne yenn papier yeeg yooyu duñ ci mën a jote buñ xam fan lañ koy joxe ji ak fan lañuy dem. d'accord loolu aussi buñ ci mënee di di leeral. di leeral ba nga xam ne information yëpp day complété. waaw pour nit mën a xam. te wàcce ko te wàcce ko ci niveau boo xam ni itam dafay da da ngay sar bi góor a sekk bi nekk Daaru Jóob xàmmewul oo ak bee bañ toog rek ci plateau yi donc. doo doo ko doo xam sax yow fan nga war a jëm ak lañu war a def problème boobu it dañ ko am Sénégal bàyyi laa tudd nga ko buntu yaa ngi fi mais dañu am problème mu bénéficié wu ci ñun jàngul te ñu jàngul Sénégal dafa bari. Mhm. sëñ Abdou Lahad si bu ñu développé boo ne état teg na seize seize rek kenn xamul bi doon xamul. Eh, eh, eh, question sëñ Diop lu mu dee wax leen ba pare wax leen. Mhm. wax leen ne ku soxla nangam fii ngay dem laajte. ko ku bëgg a dem nga dem laajte. mais ak ak technologie bi ñu avancé léegi est-ce bari mënuñu ko def ci suñu langue bi. maa ngi koy wax ci benn émission bu ñu passé ak Moustapha. Ah. bi ñuy euh, recensé maanaam immigré yi di xool di leen saytu ñu ubbi benn plateforme boo xam ne tey boo demee danaa la yow ñaata at nga am lu tax nga ñëw fii. ndax am nga jafe-jafe kayit ci wolof bi ñu làmp mu leer. Hmm. est-ce que tey xam nañu ñun suñu problème Sénégal mooy ñàkk jàng bi wolof bi moom tey boo demee. 90 pour cent yi buñ ko xoolee mën ko lire est-ce que sax matul tey. mais góor a nekk la. est-ce que est-ce que ku jàngul. tamit li nga mën a lire même ki war a ñëw la ko tey bu commencé li ëpp ci wax français la koy def. te fekk mu ngi pare woon sax pour wax émission olof mais li ci ëpp war ngay wax français. te nit ñi duñ xam li ngay wax léegi après ñu ne dañuy def. léegi sëñ léegi sëñ Abdoulaye sëñ Abdoulaye waaw mën nga koo leeralal lim lim laaj. def naa xam nga comprendre naa li ñuy wax moom. pour que li ñuy wax lépp gars yi mën ko timit di ko firi. tekki ci kalamay wolof. pour que nit ñi gën a comprendre. Mhm. Sénégal moom defe naa ne ku fi nekk journal yëpp gis nga ko sax bala bala ñuy def journal français léegi journal wolof la ñuy def. ak lépp ñu ngi wax ci wolof. revue de presse yi lépp ñu ngi koy wax ci wolof. Mhm. bataaxal yi lépp ñu ngi koy bind ci wolof. dinañ wax groupe WhatsApp yi. allo allo lépp ñu ngi koy ñu ngi koy bind ñu ngi koy partagé. mais le le problème. gars yi dinañ wax dinañ wax seeti. na gars yi wuti information. fan fan fan lañ koy wutee mooy li ma wax sànq. fan fan lañ koy wutee fan euh, maanaam xam nga xam nga information. lu tax mu yomb bu mooy tey jii nii nee la bu fekkee danga nga nekk ci ab dëkk. Ah. boo demee ci maire bi mën nañ la renseigner. Uh-huh. boo demee ci gouvernance mën nga renseigner wu. Uh-huh. boo demee ci préfecture mën nga renseigner mm. boo demee ci ARD yi mën nga renseigner wu boo demee ci maanaam état bi. Mm. dëkk bu ci nekk am na fa ay représentants. Uh-huh. bu dee yaa ngi Dakar. Mm-hmm. Eh, yaa ngi dégg ñu naan la ADPME. yaa ngi dégg ñu naan la. ay fonds yi yaa ngi dégg chaque jour yaa ngi dégg tur yi. Uh-huh. boo ci dégg nag bu la ñoree rek yow. Uh-huh. pour nga dem foofu da fexe ba dem fa wala nga fexe ba am seen numéro téléphone woo leen. Uh-huh. ah man kat am ndaw laa nangam nangam artisan yi. am na AP eh, eh, kii nu mu tuddati APDA. Eh, nga xam ne day day gunge artisan yi. ci ci lu bëri boo ñëwee dañ lay jox parce que dafa am yoo xam ne gars yi fu xaalis ñëwul duñ fa dem. gars yi xam nañu affaire yi ñu si bëri. waaw ah, mais nag sa nag sa nag sa ñàpp nag yow tamit yow tamit nag si bëri. lu xaalis nekk lu génn xaalis tamit. Mhm. non mais nag mais xaalis banque mhm. koy joxe. te la koy lebal. Mhm. parce que xaalis kenn mayeetu ko. xaalis kenn mayewu ko. Euh, am Abdoulaye Wade expérience la ci. tegoon na mécanisme yu bëri yu joxe xaalis kenn du fay. fees bi nii li ko daaneel mooy ñun jot xaalis ñëpp fayuñu fayuñu waaw waaw léegi nag euh, système nag accompagnement yi ñoom dañ lay jàngal lan ngay def ba na xam ne mhm. li ngay def xel màcc ci nga am ci expertise bu tegu ci yoon mhm. lan ngay def ba régulariser sa bopp bay fay impact doo am problème mhm. lan ngay def ba nga xam ne tamit boo jëlee xaalis bu jàmbur da ko delloo loolu moo war a njëkk ci nit boo paree nag loolu boo demee banque bi bu gisee këyit yooyu nga jëlee fële rek. Mhm. da lay wóolu à cent pour cent parce que danañ xam ne kii bu ko joxee xaalisam dara ko delloo. d'accord mais yéen ñëpp képp ba ci man mii ku ci tëb rek dem ci banque bi. Mhm. dama soxla léegi dix millions pour benn projet nangam naan la projet bi nu mu tëddee. ah dëgg la. xam la mooy sa garantie. lan mooy sa expérience. gars yi dañu xëy nekk ci benn métier vingt ans. Mhm. mais nekk ci benn métier vingt ans mënuñu laa wan benn këyit bu ndaw ci métier moom ñu ne. la dëgg la benn këyit rek laa wax. la sëñ Abdou Lahat benn këyit. Euh, il faut que nañ sensibiliser jeunes yi. ñu dem def ay formation mhm. yu qualifié am seen certificat jéem a teg ay projets yu tegu ci yoon. Mhm. créer ay petites moyennes entreprises. liggéey. immigré yi ñibbi si tamit teg seen i mbir ci yoon. Mhm. def ay projet yoo xam ne maîtriser la. Ah. mën a jël seen famille yi dugal ci. Mhm. Euh, bu ko defee créer emploi. am problème problème mu temps. parce que immigration sama baat bu mujj. sama baat bu mujj mooy que ne. gars yi ñu ngi foofu chaque jour ñu ngi takk ay nit di indi. kenn ku si nekk war nga xalaat sa retour. Mhm. war nga xalaat nan ngay def ba li nga war a teg Sénégal nga mën ko commencer dès maintenant. Uh-huh. di sàcc sa bopp mm-hmm. ci lu bëri ba a bàyyi bàyyi ay xelu dañ lay teg ci di lëkk dañ lay nax ak dañ lay def lii uh-huh. magum jëm buñ ko naxee moo ko tey teg leen seen xaalis seen mbiri compte denc ko mm-hmm. teg seen ngir mbir teg ay projet yu tegu ci yoon mm-hmm. di dem di ñëw di xool li ngeen di def ba ba ñu ko mën a def ngeen mën koo def ñëw toog liggéey ci réew. d'accord maa ngi leen nuyu baax di leen gërëm di leen ziar di leen sant bu baax ci seen taxawaay. Uh-huh. di ñaan suñu borom yàlla na leen uh, gën a taxaw ci liggéey bi parce que li def am na solo trop macha allah. amiin sëriñ Abdoulaye yàlla na suñu borom nangu ñaan yi yow tamit ñu ngi lay Touba TV mu ngi lay sant bu baax di la gërëm ci disponibilité bi wax dëgg yàlla ak ci leeral yi waxee nga ko ci dal mm-hmm. waxee nga ko ci ay teggin nu mu gën a rafetee waxe nga ko tamit nu mu gën a suufee ba nga xam ne ki nga xam ne jàngul sax bu la dégloo dina xam tey jii bu amee tel projet xam na fan lay dem ngir mën a am renseignement yi yi muy soxla yépp ngir mën a doxal projet am loolu nag moom amuñu payam waaye yàlla sunu borom am na am na am na fay ba tax na ñoo la ciy sant bu baax a baax a baax di la ci gërëm ci Touba TV Argentine bi ndax leer na nañ wax dëgg yàlla tey jii ko am projet Mhm. bu la bu jokkoo yow sax mën nga koo gën a leeral boobaa ngay gën a am temps leeral ko ba tax ma bàyyi la ak seen góor a tuuti dafay jóg pour loolu mhm. ñu gërëm la rek comme ni nga ko waxee suñu mhm. abdulaat euh, loola di kenn ko xam ne itam dafa joyal yitteem jëme ko ci euh, taxawu diaspora bi dégg nga ko ni mu wax def na Brésil voyage ci ay moyens boppam rek ngir loo xam ni dafay luy jàppale Sénégalais yi ci ni kat retour mm-hmm. dana am waaye itam loolu dañ ko war a dañ ko war a programmer mm-hmm. xam naa loolu dana nekk émission spéciale boo xam ne xam naa ne commercial lay doon ba boo ngeen gaaw ngeen sponsorisé émission bi ah. bu ko defee itam yooyu mën a dugg waa Amérique latine daal di xam ni kat yéen a ngi foofu taxaw pour pour pour bi ah, ah. dana nekk loo xam ni itam dana dana am solo ñu ngi koy gërëm bu baax kenn la koo xam ni itam. Mhm. Euh, liggéeykatu sëriñ bi la ràññeeku na lool ci ci Touba ci kanam defe naa am nga tànk sax ci ci Touba ci kanam. ci liggéey liggéey am solo. ndeysaan ñu ngi lay gërëm bu baax. waaw sëñ sëñ Touba ci kanam ñoo yor euh, comité étude et contrôle Touba ci kanam. ak ah, ça li jëm ci wàllu liggéeyu euh, ñu xam comme am murid moom. sëriñ bi rek la am. dëgg la moo tax nag. saa su ne rek. ñuy fexe rek sëñ bi liggéey loo ñu. dëgg la waaw nomb tànk li sax amul njëriñ moom daal ña nga ca mbooloo ma. di fexe daal nab nabi rek ba ba Touba jëm ci kanam macha allah. lépp jëm ca kanam bu soobee yàlla. ñu ngi lay Touba TV mu ngi lay sant bu baax sëriñ Abdoulaye Lo. merci jërëjëf ñu ngi lay bu baax mm, mm, a baax baax. ñu ngi sant tamit ñu jotoon a dugg yëpp. xam nga mbirum temps la rek ak mbirum hmm. internet bi waaye ñu ngi sant ñi jot a ak ñi bëggoon a dugg te dugg ñu ñëpp wax ji nag moom bu jubee rek su sunu borom la waaye lim ci liñ ci jublu woon Touba TV lim ci jublu rek mooy gën a ubbi xelu sénégalais yi gën a ubbi xelu bépp immigré boo xam ne xelam ak xalaatam yëpp ma nga sa Sénégal waaye nan la fay demee ak lan bu demee lan la fay fekk. looloo waraloon ñu jël ku mel ne Serigne Abdou Lahad Lo mii nga xam ne dafa yor projet yoo xam ne projet c'est privé nag waaye ngir jàppale bépp immigré wala bépp jeune sénégalais nga nekk Sénégal wala nga nekk foo mën a nekk ci àdduna bi am projet su ko defee ñoom mën nañ laa defal étude de projet mën nañ la wan yoon wi ngay jaar teg la ci yoon ba nga mën a réaliser sa projet ak projet bu mu mën a doon nag kon nag Serigne Abdou Lahad ñu lay gërëm ci turu. Touba TV Argentine mbokku jullit yi mbokku sénégalais yi. jërëjëf ñu ngi leen di sant bu baax ci seen teewaay li leen wax rek ne lu defar rek moo tax a jóg Touba Argentine fexe ba bépp immigré ak foo mën a ne nekk ci latin bi nga mën a gis sa bopp ci Touba TV bi te lépp loo jàpp ne war nañ ko war a mën a waxtaane ngir développement Sénégal. ñu mën cee yegg mën koo jottali bu baax a baax kon ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen jox dig daje incha allahu rabbi dimanche bii di ñëw 20h30 heure Sénégal 23h30 ñu ngi koy ñaan ci yàlla sunu borom mooy ñu fekkee ak jàmm ak tal allahuma salli ala seydina muhammadin wa sallim jërëjëf Sëriñ Saaliw jërë ngeen jëf